gërëm tey rafetlu seen àndi nekk la meilleure chaîne di net la chaîne des leaders Senbuzz TV amis chers internautes mbégte ak kontaante lay doon ci rédaction bi saa ne lépp képp ku ngeen soxla ci seen dundi mais également lépp loo xam ne rek war nañ ko waxtaane ñu euh, ko présenté quand même oustaz Modou Fall xam ngeen taxawaay bi nga am na ko ci société bi lu xew la ñu gis ni aussi jaadu na mu yëkkati kàddoom rédaction Senbuzz seet si ko euh, di li waral tey ñuy amaat mbégte benn yoon am moom jotaay yaa oustaz xanaa rek di la xamal ni mbégte la ci rédaction bi vraiment euh, di aussi à chaque fois que ñu soxla la vraiment loo xat-xat nga may ñu possibilité bi ñu ngi li cee gërëm di la jaajëfal vraiment ci jërëjëf congaan maa ngi lay nuyu. Mhm. maa ngi nuyu mbooleem soppe boo xam ne yaa ngi faral di bàyyi xel site bu am solo bi nga xam ni moom mooy seen Senbuzz. di ñaan yàlla sunu borom yàlla ko yàlla boole ci sit yi nu gën a bàyyi xel. di nuyu réew mi yëpp. fa tabaarakallaahu di ñaanal xalifa yu tedd yi nekk ci réew mi. Mhm. waaye jiital ci sëriñ Babacar Sy Mansour ñaanal ko ñaanal sëriñ Muntaxa ñaanal mboolem kilifa yi ci réew mi yal yàlla dëgëral leen ñaanal mboolem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel suñu waxtaan yi ñuy faral di def di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm àddina ak alaxira ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah alors euh, nañu di am ak yow jotaay saa soo xamee ni rek benn xew-xew boo xam ni laal na société bi am na ñu seet si la euh, fi may commencé yow Oustaz ban jàngat nga am ci nit ku dem ba met décider mettre en terme maanaam yàq dundam rey boppam ci li nga xamee ni mooy xaru ban jàngat nga am ci li nga xamee ni léeg-léeg vraiment ñu faral di ko nemmeeku ci société bi donte ni xamuñ ko woon ci réew mu mel ni Sénégal. jërëjëf congaan xam nga xaru moom dafa xaraam ci sharia. Hmm. su fekkee lislaam bi ñu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal. Hmm. xaru moom dafa xaraam. jullit warta xaru ak loo am lu la metti métti jullit warta xaru. cause yi tax nag nit mën a xaru mhm. cause yooyu lañ war a moytu xam nga congaan mhm. dafa am benn garab bu ñuy wax salaan salaan waaw boo ko bësee mooy génnee lu mel ni soow gis nga salaan mhm. lum bari bari bari soow boo ko laalul du génnee soow mooy am na jëfin yoo xam ne bu ko nit ki jëfee rek sës nañ ko ci miir bi maa ngi liir ci internet bi. Hmm. ñuy wax bataaxal bu ki ki dem bataaxal bi mu fi bàyyi. Hmm. li ñu bind rek ci nga mën a sukkandiku. très bien alors loolu sax xam naa dinaa ci ñëwaat mi dama la bëggoon a ci côté bi nga xamee ni vraiment ñu bari aussi moom la ñuy laaj bala ñoo ñëw ci évidemment li nga xamee ni moo gën a nekk actualité. Hmm. ñeneen ñi gis ni. quoi ku am gëm-gëm quand même wala benn éducation islaamique bi tamit dara daraay àdduna warul la jaral nga xaru nan nga jàngatee loolu tamit manque d'éducation la manque gëm-gëm nga ko jàppee wala yow en dehors de certainement du ñàkk tamit am lu ko causé. xam nga congaan li ma wax sànq ci début bi. Mm. xam nga bu ñu nee lii daa xaraam. da ko war a moytu sa kéemtalaayal kàttan parce que dafa xaraam. Mm. Mm-hmm. nit ki war na am imaan ak ngëm gu mat sëkk ba dara du ko yëngal. lu mu métti métti wakiirlul ci yàlla. ndax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu inna allaha baaligu amri congaan fii yàllaa fi nekk hmm. ku la mën a bàyyi te yàlla bàyyiwu la jàppal ni amagoo defet yàlla képp fi nekk ku jàpp ni àdduna bi yaa koy doxal téye ko hmm. ku jàpp ni jant bi yaa koy génne téye ko ku jàpp ni weer wi yaa koy génnee téye ko ngëm yàlla gu mat sëkk bu ko jullit amee xam ni kii dogal kenn la am na loo hmm. xam ne doo ko def d'accord kon li jiitu ci jullit bi mooy gëm yàlla xam kanay yàlla am aqida bu wér ne lu am yàlla la. xam nga congaan am na ñoo xam ne dara yëngalu leen. waaw loolu am na. am na ñoo xam ni. Mm. lu mu metti metti metti metti metti metti dañoo xas a chronique dara dugg leen. lu mbir kawe kawe lu métti métti ñoom. du leen ñu teg ko ci tolluwaay bi rek. Mm. congaan réew mii bu fekkee stress mooy rey nit boo ko dundee xanaa kon ñëpp dee nañ fii li fi stress Sénégal gii. nit ñi ni nu mënee yàq yi nit maanaam nin la mënee xëy xëy rek wax la lu la feebarloo Sénégal bu nu xamee ne danga am tension moom waxtu wu nekk mën nañ koo yéegal wala ñu wàccee ko hmm. da ngay fexe nag ba li la neex ak li la naqari kenn du ko xam hmm. sa àdduna kenn bañ la koo yàqal kon li jiitu ci nit mu di ko comporté wo mhm. mooy am pas-pas ak ngëm yàlla gu mat sëkk. d'accord yow oustaz dogguma la mais je pense que aussi loolu bokk na ci li gën a war a mën a tax quand même yéen oustaz yi euh, ñu gën leen responsabilité quand même ci yéen yi parce que yaa ngi koy wax léegi je pense que ni ñiy jàng diine yëpp xam nañ ni lu mënul ñàkk la ndax euh, yonent yàlla Muhammad sax yaa ngi jàng bi ko yàlla naan falaa yuhzinka qawluhum inna mhm. na'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun alors mhm. bul perturbé wu ngir accusation yi nga xam ne léeg-léeg dinañ koy jëmale ci yow mais en dehors de li nga xam ne aussi war na am muy euh, gëm-gëm bi lan moo ci responsabilité société bi. Euh, responsabilité société bi mooy ñu roy yonent bi rek. wax nga ko sànq. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mhm. daan nañ ko saboote. daan nañ yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci kawam. Mhm. daan nañ ko weddi. ku toll ni yonent bi wax ba àggal ñu ne ko du dëgg. Mhm. yàlla yónni jibril ne ko boo demee ne ko wa in yukadibuka faqad kudibat rusulun min qablik nee ko bu ñu ko weddee ba tax mu bëgg a saalit hmm. na xam ni weddi woon nañ yonent yi ko jiitu kon moom foog ñu weddi ko unanimité kenn mënu koo am ci àdduna parce que yàlla amu ko Seydina Muhammad amu ko hmm. kon taxawaay bi société bi war a am hmm. mooy nanu nanu nanu nanu ànd ak sunu xel congaan am na loo xam ne ñaaw na de congaan Sénégal gii ñu nekk billahi allazi laa ilaha illa huwa mm-hmm. am na góor ñoo xam ne ñi ngi ci seen kër yi mm-hmm. ñu leen di mbugal guddeeg bëccëg te demaguñ safara te ki leen di mbugal du kenn ku dul seen jabar alors xam naa sax foofu laay duggee ci certainement question bi nga xam ne moo gën a nekk actualité sax muy euh, li gën a nekk récent quand même jamono ji muy génn ak àdduna ki nga xam ne mooy docteur Falla Paye rédaction Senbuzz di ko ñaanal yàlla ak way dawlu yëpp alors yow Oustaz ndax gis nga ni lettre par rapport ak li nga xam ne bàyyi na ko fi ci derrière am euh, moom docteur Falla Paye ci ay accusation mën nañ ko tuddee noonu entre guillemets ci loo xam ne yëkkati na ko ci soxnaam xam le ni ñàkk satisfaction ak it gëm ni li mu yaakaaroon ni moo waroon a am ci digganteem ak soxna muy mbëggeel amul looloo ko waral moom gëm na ni sëy bu mbëggeel amul moom du nangu doom di si sosu lecture ban nga am ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko moom docteur Falla Paye lu la temps muy wuy ji boromam. jërëjëf Thiongaan. Mm-hmm. dama la wax sànq ni la li ma gis ci internet bi. ñu mm-hmm. bind ko. Mm-hmm. wax ni moom la fi docteur wax mënuma cee sukkandiku waaye daal danaa joxe conseil fi jamono toll mooy ni man xam naa ñoo xam ne ñi ngi ci seen biir néegu sëy ay góor mm-hmm. yoo xam ni ñi ngi leen di mbugal ci seen biir néegu sëy te demaguñ safara ne ñi ngi stage fii ci àdduna safara te ki mm-hmm. leen koy teg du kenn ku dul seen jabar ji ñu takk congaan Sénégal ngay gis ku takk jabar yow ku góor ki nga xam ni sa jabar ji sëyul respecté wu la joxu la sa cër di la fitnaal ba bëccëg te ñemewoo sa am na ci am na ci yoo xam ne ragal sa jabar la am na ci yoo xam ne mystique la am na góor ñoo xam ne dañ leen a yeew ba duñ wax looloo waral yenn saa yi nga gis jigéen yow nga toog naan waa kii jëkkëram ji dara fan ko téye lañ fan la fan ko téye lañ la téyewul rek jigéen ñi seen contact gi téléphone yi ay sëriñ a ci ëpp marabu Jóob marabu Faal bu Kawlax mm. marabu Saalum dakaar mm. Dakar bu Louga mm. dëkk yépp danañ fexe ba am fa sëriñ parce que jàppeetunu sëy mm-hmm. muy jaamu yàlla da ngay gis jigéen juy sëy ci biir kër respecté wul borom këram congaan mhm. dañ waxante dëgg am na jigéen ñoo xam ni mhm. jàppee wuñu sëy comme jaamu yàlla am na jigéen ñoo xam ne respecté wuñ seen borom kër am na jigéen ñoo xam ne faale seen goro am na jigéen ñoo xam ne ni leen neex la ñuy sëyee am na jigéen ñoo xam ne fexe nañ ba napp seen jëkkër te góor bis boo demee ba ragal sa jabar ba mu napp la mhm. bu yabu bu añ jotee wutal repas xam ne yàq xar yeeyam arrijaalu qawwaamuuna baamtul kalima boobu yaa Oustaz baamtul wax boobu. góor arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i mhm. yàlla nee na góor mooy diriger kër mooy diriger jigéen bépp góor gu ñàkk fayda ba tappet sa jabar ba ñëpp xam ne da ragal sa jabar yow. Mhm. bu añ jotee bàyyi fi ceebu jën ji dem wuti ripaas xam ni xar yi ñoo la tane. Mhm. congaan am na góor ñu dul sëqat am na góor ñoo xam ne du ñu wax. am na góor ñoo xam ne respecté wuñ seen yaay. bu la sa jabar ne bëgg seen soxna yaa oustaz moo ko waral tamit. déedéet xam nga bëgg ak bu ëpp wala. dama ne la. Mhm. mal farxu bay na ragal wa bëgg dafa am. boo ma posé woon question boobu dama la naan. Mhm. bëgg sa jabar mooy lépp lu mu bëgg. te teg tànkam ci yoon. tey sëy ni ko lislaam santé lu mu bëgg defal ko ko. loolu bëgg la. Mhm. ragal sa jabar mooy. koo xam ni sa jabar a nga lay manipuler comme commande jàpp TFM ak seen TV nii di la manipuler. Hmm. amoo personnalité amoo fayda amoo charisme dafa am góor ñoo xam ni ku leen seen jabar bàyyiloo ñu bàyyi ko. bu la nee sa yaay jii dafa soof sa yaay man ni ma soofee sa yaay dafa seytaane yow nga naan ko <laughs> mère kay moom wax dëgg yàlla <laughs> ne rajim rek. boo ñàkkee fayda bañ naan la sa yaay sa yaay daa seytaane nga accepté ko. Hmm. congaan congaan jabar dafa jafe jamono bii ñu toll képp ku fi bëgg a takk ku la miin bëgg la te yàlla tax du xam ku dul yow dangay bàyyi ba gis xale bu am quatre ans kuy jàng dox di raam nga bindu ci ku bëgg gis xale bu la bëgg di ko jëndal soow hmm. di ko toppatoo bu jardin jotee nga yóbbu ko jardin mu jàngi ngay yónnee ñu koy jëli ba mu xàmmee gimmi miin la nga xam ni kii moom yaa ko yar hmm. mais koo fi bàyyi ba mu mesure ba romb fekk nga gaa yi bind bu yàgg mais mais mais est-ce que sama mbokku jigéen ñi duñ la xaw a mere yaw saas da nga jàpp ni euh, mbëggeel amatul wala bareetul ci ci. dafa bareetul ah. dafa bareetul bëgg nit ki te yàlla tax ba bu amee téeméer jox la ko mu mel ni milliard ci yow. Hmm. kenn mënulaa influencer ci sa jëkkër lu tax nga war a changer doxalin loolu moo fi bareetul tul intérêt lañ lay toppee bu ñuy dugg ci yow ñi ngi xool ñaata kër nga am ñaata oto nga am lan mooy say bien ñu ngi xool nuñ la mistiguer ñoog say mbokk ñu ngi def lu nu mën ba doo leen <laughs> congaan congaan soxna dafa jafe de fi jamono toll nii hmm. da wuti xale bu am trois ans di raam wax naa la ko. Hmm. boo bëggee boo bëggee am ku la bëgg. boo bëggee am ku la bëgg miin la ku am trois ans ngay dem bindu ci. très muy am quatre ans ngay bindu. Hmm. di jënd caaki rek soow. ah. di ko toppatoo ba mu xàmmee. bu ma tee takk nga takk ko da lay miin. génération bii ma gis ci Sénégal gii période bi nii ñuy sëyee ku ci yàgg takk danañ la konteel ay jabar. billaahi wal congaan sëy boo xamante ni bii balaa ngaa dem ay million lañ lay may moom ngay tiitaroo buñ la ko mayee say mbokk opposé wu ci sëy bi waxal sa jëkkër nàngam xat ga lay na nga fexe ba xam turu yaayam ak turu papaam dem liggéey ko lii fi am maire yu seytaane yi bàyyiwuñu kenn mu sëy sëyam hmm. moo tax boo amee sa soxna amal fayda ba maire yi maire yi maire yi xeesal ba ras borom maire yu seytaane yii fexeel ba bu ci kenn di wéet ak sa jabar maire bu ma fekk nga taxaw ak sama jabar dootoo ko defati. Hmm. dañuy xel mi la ñuy naan. bari na ku naan la sa soxna si de maa ngi waxtaan ak moom di ko conseillé di ko jàngal mbiri àdduna xam nga jigéen ñi seytaane la de. <laughs> yàgg ak moom de. Hmm. nga gis ku naan la maa ngi koy wax mbiri àddina xam nga jigéen ñi nag ndeysaan sëy xale yi xaw seytaane la. Hmm. sa jabar buy soxla conseil demal ci sa yaay mu conseil ko moom mi sëy ba am la yow ba nga mën a takk soxna ay mhm. eh, bàyyi fi sa yaay wuti ay xarit xarit yi nga xam ne dañuy fen fii Sénégal xarit yu bari dañuy fen gëmuñu seen moroomu xarit lii moo am ci réew mi ànd jayante wét jëwante ku ci sa xarit avancé ngay bëgg a dee ku ci sa xarit am loo amul ngay bëgg a dee boo dajeeg moom xew yaa ngi ek moom def ko wujj Sénégal da ngay gis ku la talul nga bëgg koo def wujju ku amul sa jot lijjanti wu la yow looy wujjeeg moom am na ñoo xam ni boo doon liggéey di fayee ko 15 milliards par jour taxul nga dab leen parce que li nu am du am am yàllaa leen ko may dafa am nit ñu am cas xam nga cas. Hmm. mooy koo xam lu mu def mu rafet. lu mu wax nit ñi bëgg ko. bu leen bëggee toppandoo te koy dogal nekk ca kaw da ngay sonn. c'est kon nag li may conseillé mooy kuy takk jabar takkal ku la nopp. très ku fi takk ku la nobul de billahi dóor nga sa loxo ci ëkk. mais mais yaa bu ñu jëlee kaw docteur euh, Falla Paye bi nga xamee ni tamit xëy na gis nga métit bi nga xamee ni ñu bari ci askan wi am nañu ko aussi moom mi nga xamee ni dafa rey euh, ay doomam ginnaaw bi nga xamee ni aussi pare na ci ñoom mu rey boppam ndax logique na nga nekk ak jigéen benn at ñaari at ñetti at ngeen am ñetti doom bëggoo ko alors. te xamoo ni wala mënoo sentir ni yow kii bëgg na la wala bëggu la yaa oustaz lan moo ci responsabilité. tamit am na ñu say la wala nan la tuddee hmm. am na ñu say 40 ans te ba léegi ñu seen jëkkër. te ñu ngi ci buumu sëy. am na ñu say 50 ans te ba léegi nobuñu ki ñuy sëyal xam nga lu koy waral. Hmm. sa doomu nijaay la mënoo ko fee bàyyi foog nga takk ko. sa doomu bàjjan la boo ko fi rombee mu ñaaw ñun famille bi moom mbokk rek waaw aaw moom sa sa néegu ndey booy takk ñaareel nag takkal koo xam. nga obligé takk sa jabaru yaay mooy koo xam ne sa yaay nga sa tax nga takk ko. boo takkee ku sa yaay bëgg te noboo ko doo ko masa nob nob du lu ñuy créer yenn saa yi nga dégg ku naan xëy na boo yàggee man dinaa takk jabar nga naan ma muñal boo yàggee moom di nga ko bëgg. c'est vrai que ça fréquent dëkk bi moom loolu la ñuy wax moom bëgg kii rek. rek moom kay demal toog boo yàggee man dinaa takk toog di stage di xaar kañ laa koy nob su ma xëyee mu may gën a soof bu may lalal napp pour ma ndékki ci la may gën a soof su ma sonnee ñëw naa papa agsi nga ci laa koy gën a bañ maanaam fi nga war a nobee fala la ndaw si di gën a soofee une mm. saa yi nga gis ko wàcc 17 heures mm. fu ne mu wëri fa ba 22 heures xam nga lu tax mm. ki muy fekk si si kër gi la nobul te yaayam forcé na ko ko ba mu takk ko te ndaw si it day bëgg a bari bari lu ay feem moom itam 18 heures da koy fekk mu solu boo duggee papa agsi nga ma merci naan naa merci jërëjëf. Hmm. noboo ko. gis nga ñaar ñu nobante seeni seeni seeni seeni jëfin boo ko xoolee rek xam ne kii nopp na wala nobul ñu bàyyiwul naan nit ki takkal diw parce que moom laa bëgg. Hmm. problème du fi gaaw a jóg. nanu bàyyi ku ne takk ka nga nopp. d'accord c'est ça le problème. d'accord donc da nga gis ni aussi du ñàkk souvent bokk na ci liy causer problème yi muy li ñuy wax mariage forcé aussi. je pense que mais mariage forcé bee fi bari congaan hmm. yow da ngay am koy bëggantil nga ñëw wax ko sa papa sa papa naan la xam nga ay mbokkam nga ni ko waaw. géer la wala géwal mu ne la géwal ah ñun ñun duñ see géwal de xol bi ba muy bëgg xàmmeewul géwal la wala géer hmm. yooyu existé wul. géwél ak géer ak ñépp a yem ca yàlla ku ne nañ la bàyyi nga takk ki nga bëgg bu fekkee jullit la comme yow ngeen ànd sëy jaamu yàlla mais congaan Sénégal problème yi fi posé yépp takk ko nobul te nag xam nga lu gën a garaaw bëgganteeg nit ay at ñu xëy xëy weñ sa loxo may la keneen nga fay sëy te noboo ka ngay sëyal yaa ngi kar créer ay problème xam nga noo koy fajee mm-hmm. bul tukki bul sori boo takkee gelu jàmbur. Hmm. bul tukki bul yi del na ci kër gi tous les jours. d'accord ñaari xol yu miinante yàgg a gisee. Hmm. yàgg a joxante rendez koo xam ni sa numéro bind na ci tur bu ne bébé chocolat mon amour racine de ma vie ma vie nangam nangam. Hmm. congaan am na ñoo xam ne bu ñu la nee mën nañoo bàyyi nit ki waxuñu la dëgg. soo ma naree maye. te ma am ku ma jox sama xol. te mu leer ma ni ki may may bëgguma ko te du ma def sa su ma demee ca sëy ba am fa bàkkaar. ma toog bañ a sëy moo ma gënal may sëy ku ma nobul di ca am bàkkaar yenn saa yi jigéen ne la man su ma bëggee am bànneex damay xalaat ki ma doon ki ma ki ma takkul ki ma nekkaloon pour ma yëg sama bopp mais loolu lan moo ko gën a rëy ci bàkkaar congaan bëgg dafa garaaw moo tax danay faral di wax ni bul dégg ñaar ñu bëggante ñu am problème ba xëy ni la bàyyante nañ nga ciy sànni sa grain de sel am na ñoo xam ne buñ la nee bàyyi nañ diw waxuñu dëgg yenn saa yi la ma daloon ca ndaw sama ñëw di ko arrangé jëkkëram muy waat barke sëriñ Babacar xoola day waat bay kalambitu ci calendrier bi oustaz kii bu ma naree sëyaat ak moom barke sëriñ Babacar kii waaw oustaz man ñun duñ yàbbi di lekkaat. <laughs> Hmm. une semaine lañ ci teg ma gis mu estati jëkkër ji naan su ma yàlla bëggee na ma bàyyeeg kii. ma ni waaw lii ku ci sànni woon sa parole doo rus. am na diggante yoo xam ne buñ dee cooki fin bay naaw ci kaw jaww ji. féetewal seetaan rek. c'est très bien buñ ca payloo fekkaat la fi. très bien alors alors bari na ku naan la ma naa bàyyi diw. mënuma mhm. koo bàyyi kii barki sëy du du dëgg. Mhm. congaan léegi ni ma yeewoo ci problème mu mariage yi. Mhm. danga may woo ratatat barke alxuraanu karim billahi oustaz kii bu ma naree duggaat ci moom te xot xoolal. xat gàllay na nga gis te kat xulóob yëpp duñ la bloqué de wala buñ la bloqué chaque deux jours ñu débloqué la xool loo dugal statut bloqué waat la. duñ la bàyyi. koo mënta bàyyi doo ko téye. waaye bàyyi naa diw du ma duggateeg moom ñun suñ famille xamuñu nangam kii du ma sëy bu ma nammee sëyaat ak moom. une semaine lay toog xel mi yëpp nekk waat. fa ca bëggeel gëla. super koo bëgg téye ko bëgg naa aussi yow Oustaz ñu des ci euh, ki nga xam ne ni mooy docteur bi fi jóge docteur Falla Paye euh, moom man nañu wax ni man na euh, d'après par rapport ak li nga xamee ni bien sûr bind ko bàyyi fii ki mu takk du mbokkam certes waaye tamit mbëggeel bu ëpp moom kaawam noonu lañ ko mën a jàppee parce que dafay gis ni trahison ak moom mu considéré woon soxnaam jàpp ni bëggoon na ko dem ba gis ni jabaram bëggu ko danga gis ni souvent dafa am ñoo xam dañuy nekk victime alors dañ dul ràññee tamit parce que ngay sëy ak nit bëggu la tamit ngay forcé yaa Oustaz ndax jar na ko aussi mais lan moo ci responsabilité aussi ku góor ki nga xamee ni tey muy docteur Falla Paye ndax bëgg nit jar na aussi ngay dem ba yegg fii ak moom. xam nga congaan mm. damay faral di wax ni sa xol bii koo ko jox ku dul yàlla bu la waree nga yëg ko mm. congaan bëgg bu njëkk amoon na mais jamono bii ñu toll congaan sa xol bi koo ko jox dalay fowee de effraire gan lay def sa xol bi sotti ci ndox mu mu mu seey nga perte bul jox kenn sa xol bi jox ko yàlla. mais dafa am góor ñoo xam ni dañ dafa am góor ñoom dañoo tul xam nga tul mooy ku paaka dul dugg. dafa am góor ñoo xam ni ragajoog bii ñoog nobu malaak du tax ñu bala. yenn saa yi nga gis kuy topp jigéen mu koy toroxal guddeeg bëccëg boo wootee allo lan la yow e bu ma woowaat damaa jàpp ka rek du noppalu de lay xaaraat allo bébé ay yow waxal dafa am góor ñu ñàkk fayda. jigéen ñi jàppee leen ay dof ku la bëggul looy wax ak moom congaan dama laa bëgg bëggoo ma doo ma mës déggati ci àdduna waaye dafa am ñoo xam ni dañoo mën a forcer da ngay topp ci jigéen di rey sa bopp benn waay bërki démb dafa am ak problème soxna si mm. mu ñëw ni ko yow sa soxna si est-ce que nopp na la ma ne ma man de wax dëgg yàlla nobam moom wóoru ma waaye man sama bés wóor na ma <laughs> subhanallah ma ne ko ñi war a dundee ripaas ci nga bokk listu ripaas bi daa bari de góor ñi war di dundee ripaas ci Sénégal gii dafa bari góor ñu ñàkk fayda ñi topp jigéen bëggu leen congaan li sama rab gën a bañ mooy nopp ku la nga topp cay daw faalewu la toroxal guddeeg bëccëg indi na góor sax mu di ko gunge pour nga gis ko mm. mi ngi estati ay góor di la naqaral guddeeg bëccëg nga tëti ci rek loolu baaxul mm. nit day bëgg ku ko bëgg ku la bëggul nga ci moom ba set wicc mhm. bàyyi ko keneen. Mhm. alors lan nga jàpp ni aussi yaa oustaz souvent tamit mooy waral lu mel ni tamit ñu koy faral di ne mee ko vraiment muy faral di fréquent ndax da nga gis ni aussi dafa am impact bu jigéen bu bon. am ci maanaam am role boo xam ne am na ko ci sëy euh, te xëy na ñu baree bari aussi ci góor ñi wuñ ci xel. ban impact la jigéen gu bon vraiment mën a déstabiliser li nga xam ne mooy vie góor wala vie wu société. jigéen jigéen ji bon. Mhm. te amul pas-pasu sëy hmm. lu mënta yàq ci say amul moo tax yàlla teel ñoo leeralal ni ñu jigéen ju ngeen gis ni daa bon su ngeen koy may may leen ko góor gu bon hmm. azaniyatu laa yankixuha illa zanin aw mushrikun yàlla nee na njaalookat bu jigéen maanaam saay-saay bu jigéen bu hmm. ngeen koy wutal jëkkër wutalil leen ko saay-saay bu góor comme moom nga xam ne ñaari saay-saay la ñuy doon yàlla nee na lu mën a xew nag wa xurrima zalika alal muminin bu leen leen may jullit. Hmm. kon jigéen gu bon jigul góor gu gëm yàlla ci gàttal. baaxul d'accord baaxul. Hmm. parce que mën na laa yàqal lu nekk. Hmm. jigéen ju bon mooy ñëw ci kër. tàqale la ak sa yaay. jigéen ju bon mooy ñëw ci kër fexe ba dootoo am xarit. jigéen ju bon mooy ñëw ci kër di def lu ko neex. ci biir kër gi. Mm. te kenn du ŋaang. jigéen ju bon mooy ñëw ci kër. séparé magu séparé séparé la ak say mag. Mm. séparé la ak say rak. di la liggéey nag guddeeg bëccëg. yenn saa nga gis kuñ toggal suppu kànja nga naan sa suppu kànja bi amatu fi amatu fi kay. parce que liñ ci sotti ci ay saafara da ngaa xam nu mu toll. Mm. amatu fi. dëddale gi mel ni tulleeg màlle. nekk ak sa jabar ci jàmm ak salaam nit ñi de du ngeen am jàmm. moo tax nit ñi. Hmm. lum leen jaral pour nga bañ am jàmm na la ko jaral pour nga am jàmm. nit ñi lum leen jaral pour nga bañ a am jàmm. na la ko jaral yow. pour nga am jàmm pour nga am jàmm. façon bu ñu mën a jaar nag. Hmm. fexeel ba daal bu la kenn déstabiliser. sa kanam bu ci teg ku dul yàlla. Hmm. bul wuulu ku dul yàlla. parce que problème yi dafa bari. te nit ñi foo. kon booy jàpp jàppal yàlla. yow sax ndax trahison tamit ci biir sëy neex naa gérer yaa oustaz trahison nga dund ak fukki at fukki at ak juróom-benn dem ba yaakaar ni wax dëgg yàlla xëy na euh, li gënoon a bari ci sa dund partage ngeen ko ensemble yéen ñaar mu xëy tamit war la ginnaaw ci sa jàngat loolu tamit euh, du góor ñëpp ko mën a mën a supporter aussi yaa oustaz. waaw mooy li ma la wax rek. xam nga mm. boo joxee sa xol bi yëpp. 100 pour cent yëpp nga joxe ko dama laa waxoon ni la joxeel 50. garde cinquante mm. buñ la wooree 50 yi nga dese woon nga mën cee dund. mais jël 100 pour cent xol bi yëpp jox ko jigéen. Mm-hmm. gisoo boo rombee géej gi am ñuy toog jàkkaarloog ndox mi naan j'ai perdu ma vie j'ai euh, de souffrir déjà parce que ma madame il m'a fi laissé tranquille je veux que mon vie dof yooyu ngay gis xam ne ñaari dàll carax yu bokkul la ñuy sol jàkkaarloo géej gi naan il fallait que ma ñëw jël euh, biche bi parce que y a des problèmes yoo xam ni il faut ma aider dof yooyu. Mm-hmm. mooy ñi jigéen bàyyi seen adduna tukki. yàlla képp la war a ba nga war koo yëg. mais ñooñu est-ce que dañoo sincère yaa oustaz jàppul sincérité la tamit. jigéeni jamono bi congaan ñoo laajul jox sa xol. Ah. yaa oustaz jigéen dina la mere tey. barki alaaji Malick boo leen joxee sa xol effervescent lañ koy jàppee ndox lañ ciy sotti mu seey wala Nescafé ndox mu tàng mu ne fuuf jeex. bul jox kenn sa xol bi wala bëgg bul joxe lépp dama laa bëgg. Mm. damaa bëgg ñu sey te yàlla tax. Mm. mais nag ahbib habibaka hawnan mm. maa asa an takuna gadan aduwak booy bëgg bëggal ndànk parce que ki ngay bëgg ba jox ko lépp xamoo ëllëg ban taxawaay lay am ci yow jël sa xol bi jox ko jigéen ku la wax ku ko tudd nga mer kenn du ko wax dëgg kenn du ko tudd bu la sa bu la sa rakk yi ne sa jabar ji may leen ko jàmm mm-hmm. bu la sa yaay nee sa jabar ji yaay yow nag kii moom mënoo koo supporter nangam nangam bis bu la bàyyee da nga koy yëg. très bien may fàttali nii yow Oustaz dañ la fekk nga xaw a xat lool njël nañu lu bëree bëri sax si si temps rédaction seen bés Oustaz Modou Fall lay am ak jotaay du ma toog ak yow te gërëmuma laa lingeer di astu sare borom sama yaayu bopp la ah euh, sama tata la man sama yaayu bopp la alors di sa soppe aussi. jee astu sare jee astu sare congaan mhm. euh, jee astu sare suñu jigéen la. Mhm. suñu xarit bu baax la. Euh, nekk ca Amérique nekk jàmbaar. Mhm. xamul lu dul daan dooleem. waaye réew mi nag mu am ñu bari ñoo xam ne mi ngi leen di dimbali am na ñoo xam ne bu ñu añee ginnaaw yàlla moom la. Mhm. ubbi daara yi alquran ñu di fa jàngale alquran gratuite ña fay jàngale moo leen di fay la donga yee di dundee moo koy joxe. ci jigéen ci jigéen. am taxawaay bu mel noonu ci li gën a tax ma fonk ko. di dimbali néew ci doole yi. borom xam-xam yi mu di leen dimbali. jàngkat yi mu di leen dimbali. Mhm. nekk nit ku am taxawaay. moo tax bëgg naa congaan yow mii. Mhm. mu yónnee la xaalis. incha allah sama yaay la. ndax jàmbaar nga. gëj naa ko gis tamit. te am nga taxawaay. <laughs> très bien merci <laughs> bëgg naa daal jeeastu sare fii laa la koy wax. Mm, sama xarit bii. incha allah bëgg naa nga teralal ma ko teralal ma nag waa seen bës yëpp. incha ndax ñi ngi taxawaay bu am solo ci réew mi. ma jeexal te gërëmu ko sama leader bu mag bi sama soppe Pape Djibril Fall PDF. Euh, baayu Cheikh Ahmadou Bamba rédaction bi ñu ngi koy ñaanal mu dund lool te wér euh, baayu tamit euh, soxna Jaariyatullah maa ngi lay jaajëfal leader bu mag bi PDF yow Oustaz mbégte la woon ci am ak jotaay vraiment beneen yoon ñu am ak jotaay ak yow mais bëgg naa quand même bala jeexal nga am loo xam ni dangay xool caméra bi muy benn message boo xam ni da nga koy jëmale ci góor yi nga xamee ni vraiment jamono ji ñu ngi souffrance ci seen sëy congaan mhm. maa ngi maa ngi ñaanal ki dem mhm. di wax Sénégal képp koo xamante ni bii mhm. yaa ngi am koy bëgganteel nattal jikkoom ba xam soxna la pour nga denc ko parce que nag sëy du caaxaan sëy jaamu yàlla la. balaa ngay ànd ak nit nattal jikkoom koo bokkalul jikko bul sëy ak moom jigéen ñi am na ci ñoo xam ni seeni bët wow na seeni bëgg-bëgg bari na ku am ñu ànd ak yow ku ñàkk ñu wan la gannaaw képp koy àndal nag balaa nga ciy dugg. bàyyil xel ndax ëllëg su problème amee dana mën a toog xaar ba keroog yàlla di régler problème boobu. ànd ak koo xam ne nag du la wor du la trahir li mu lay wan dëgg la ci moom du afficher indo dawal kabooy lu am solo la.